ñu nekk ay soxna yu ñu daal di fekk ci biir post de santé bu Grand Médine ngir amal seen dépistage cancer ku nekk di xaar tuuram Fatoumata Bintou Sy doon bàjjenu gox nekk kuy toppatoo rang gu ñi war a jaar ci test de dépistage. am boo xam ne ci biir presque dem na ba ci ay te fii tam beneen liste baa ngi nii presque mi ngi ci vingt six vingt sept vingt huit soixante seize ba quatre vingt daal am na amagum na. gu yaram jigéen don lu am solo moo tax it bépp xeetu dépistage la ñuy amal El Hadj Fallou Guèye doon trésorier général CDS Grand Médine am xel bu dal ndax ba léegi amul benn cas. jigéen ku ko wax wax wér gu yaramam. donc loolu moo taxan ñu ne tey dañu def dépistage cancer du sein ak li nga xam ne mooy cancer col de gis nga mbooloo mi pour l'instant moom euh, c'est négatif amaguñu benn cas boo xam ne bu jéggi day wala boo xam ne cas cancer la pour l'instant amagul benn bile bés duggulet ci gox biile ndax daaw lu ëpp ñetti téeméeri nit la ñu daa dépisté mu am juróom-ñett ak benn cas cancer madame Samb Ramatoulaye Diouf sage-femme di ci dikk. daaw lu mat euh, trois cent cinquante à trois cent soixante femmes seetoon nañ leen mais référé woon nañu quatre vingt et femmes yoo xam ni gisoon nañu leen loo xam ni war nañ ko topp tegoon nañ leen ci loxo yu leer ñu dem def seeni traitement ba alhamdulilah même pas six mois dellusiwaat nañu ñu am satisfaction. satisfaction ci lool ren ji ñu fas yéene dépassé bi lim ñu ciy séntu lu toll juróomi téeméer nit ci wàllu dépistage ñeel octobre rose